bi rabbil alamin santaat yàlla bu baax a baax julli ci yonent bi sang-sang yi di sant Serigne Touba Xaadimu Rasuul mi nga xamante ni moo waral jataay bi ci dëkkam bu sell bu tedd bi suñ boroom dajale nu fi mu mel ni bu nu dajee fii war na noo sant yàlla bu baax ci dajale gi nu fi boole ci kàttanug Cheikh Ahmadou Xaadimu Rasuul Cheikhuna Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul mu mel ni dañoo jublu ci bis boo xamante ni bu màgg bu sell bu rëy muy sant sunu borom subhaanahu wa taala oh, muy loo xamante ni defunu lu ko kawe njort lu ko gën a kawe amut ndax lépp ci sant rek la yem te sant gépp fi mu yem muy sant sunu borom subhaanahu wa taala kon moo waral bis bu màgg bii nu jublu muy juróom-benn fani rajab di le 28 di samedi Serigne Cheikh Thiam xaritu boromam di ko wootee waaye ci bi mu koy wooteet mu ànd koog ñi nga xamante ne ñoo toog ci jataay bi ñu jiital ci sëñ Fàllu Mor Doj di sëtu maam Thierno Birahim di doomi sëñ Mor Doj kon loolu rek doy na ci kilifa muy ku woyof lool moo ne nii toog sëñ Cheikh Thiam jaxasoog moom lool euh, mu mel ne ñu ngi ci treizième édition ndax daaw la douzième édition yëpp mu di ko ànd ak moom mu feggoog sëñ Omar Niass ci wetam ak ñi toog kon ñoom ñoo teew fii ci jataay bi mu mel ni kon lii mooy li nga xamante ni moom la ñuy jàllale kàddu gi nag sëñ Fallou mi nga xamante ni fu mu a amee muy ci tele muy ci rajo muy fu mën a doon rek première kàddu ga moom moo ñu koy jàllale noonu dañuy laase rek ba pare jox ko mooy ubbi naka jekk mooy tëj. ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaare te di sant suñu borom tabaaraka wa taala bu baax. te julli ci bi sallallahu alayhi wa sallam sant Seexul Xadim di leen yëgal bis boo xam ne bis bu am solo la muy bisu sant te sant ku ne xam na ne bu ko suñu borom moo lay dolli boppam la in shakartum la azidannakum bi nag di sant yàlla sëñ Cheikh Mbacke Thiam xaritu boromam di ko def at mucc ne muy bis boo xam ne bu am solo la ndax nañ ko def ci weer wu tedd muy weeru rajab te ku ne xam ne rajab mooy weer wi nga xam ne ci sunu borom invité woon Yonent bi sallallahu alayhi wa mu ngi woon ko fa ca maqam mu tedd moomee mu jox ko sa xare mu jox ko fa julli juróom mu ne anniversaire julli sunu waa ji Cheikh Mamadou Fadal ci la gane woon jamono kon muy bis boo xam ne weer boo xam weer bu tedd la Cheikh Mbacke Thiam di ci sant borom kon bis bi mu dajal lépp macha allah am na solo lool. kon nag euh, bis bi it nekk bis bi nga xam ne ci la ku tedd ko Cheikhouna Ahmadul Khadim woon dëkk bii mu di Touba Al Mahrouss kon sëñ Cheikh Mbacke li nga li nga bis bi nga woote. day mel ne bis la boo xamante ne bii boo ci sànnee wenn wenn sànn da nga da nga dajale da nga ñaan danga nga da nga danga nga da nga da da nga jëm ñetti picc kon nag alhamdulilah bis bi tedd na lool kon nag képp koo xam ne dégg nga sunu kàddu gis sunu sunu jëmm rek nga ne bis bi sunu bis la lépp loo ci man ak loo ci loo ci man rek na ko ci def te te ñu ngi sàkku sa teewaay incha allah taala di sant yàlla bu baax nag bi ñu fekk waate jàmm fekk waate jàmm ak salaam di ñaan it suñu borom ñu dugg ci bisimilah rahmaani rahiim eggale ko alhamdulilah rabbil alamin fi wowal rek ci bis bi <coughs> bis boo xam ne fukki fan yi yoo xamee nii mën naa wecc ay at xam ne moo ko sablu di ko def ndigal suñu borom bàyyee ñu sant ko ko mu ko daan def ci juróom-benn rajo doonul lu muy jàpp. dina ma ko def ci fukki fan yëpp dina ko waxe wala ci juróom-ñetti fan yëpp dañ ko woo sant moom suñu borom ñu dalal ko di ko sant ndax cant ko mu ko sant mu di ko war a jëf ba pare di ko jëfee te ànd ko fi bokk na kon nag ñu ngi yëgle bis képp koo xam ne déglu ko annonce bi mooy soog bu woote. di woo nag mboolem askanu Thiamine ku bokk ci kër Abdou Degene kër Ablaye Cissé Thiam kër Mat Thiam Gondé. mboolem ku ci bokk noo ngi lay woo di suñuy bokk di woowaa koñ bi na ñëpp ñëw kenn ku ci nekk na takk lépp lu ci waay def sa bopp nga ko defal noo ngi woo ñëpp di woo Fatou Dieng Thiam di sant Alaaji Madiagne ñang sama boroom kër di ko ñaanal yàlla yal na ko fi yàlla yàgg di woo Fatou Dieng sama mag na woo waa Thiès gépp bu kenn des Fatou Bomba Jum magu Thiam Adama Thiam Ayda Thiam soxna Nabou Thiam ak i rakkam noo ngi woo ñëpp di woo waa kër Abdou Ndéguène gépp lu ma ci juum nag nañu ma ko jéggal yëfi suñu la rek. kii di ko def ci borom bis bii yàlla may ko koy weer ak a dund ba teel a woon màgg ci këram bii. lépp lu neex diine rek loolu ci la ci la nekk kon bis bii bis bu màgg la ñoom ciy woor. ñëpp képp kuy mbokk maa ngi nuyu ñëpp di woo ñëpp ci bésu Baye Cheikh Thiam xaritu boroomam day sant le samedi vingt vingt huit incha allah rabi ñu ngi woo ñëpp. di sant soxna Kumba Thiam ak Baye Cheikh Thiam mii nga xamante ne moo ñu jiite ci kër gi te ba ñu jiitalee ba tey kanam rek lañ jëm di ko ñaanal gudd fan ak wér. ñu dund ba bañ leen di teeru yoonu màkk ñoom ñaar ñëpp di sant tonton Cheikh jóob ak tonton ñas ndax ñoom tamit bis bi dañ cee taxaw bu baax niñ ci taxawee sax de borom sax taxawee ko ci ñu leen di ñaanal ñoom tamit gudd fan ñu dund cent san sans ci barke Cheikhul Khadim di wax bis bi nag bisub sant yàlla la rek leneen bokku ci ku ci def leneen tamit di nga ko gis rek bu soobee yàlla. ci barke Cheikhul Khadim waaye ku ci ñëw digle li borom bi def digle li borom cant gi def loolu tamit moom ngay yóbbu soo demee kon nañ leen def li borom bi sant li borom borom bi ni mu koy santee nañ leen ko defee noonu buñ ko defee rek kanam la jëm ndax yoonu Serigne Touba amul tànki ginnaaw tànki kanam rek la am moo tax ba mu ci taxawee ba tey kanam rek la jëm. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ku dégg kàddu gi war a xam ni ñu ngi dëgg dëgmal bis bu rëy. ni bisub cant sunu borom ku koy def sëriñ Cheikh Thiam xaritu boromam di sunu sëriñ di sunu wayjur di sunu lépp cant gi nag mu nga ko tàmbalee fële ca Thiès gannaaw bokk ko sunu boroom digalee mu ko mu di ko def ba fii mu ñëw Touba di ko fi def am ci ndigalu xalif bi jamonoy Cheikh Sidi Muxtaar mu ko ci daan ndigal mu koy wëyal ba kii fi nekk tey xalif bi fi nekk tey sëñ Muntaxa Mbàkke Basiir yàlla na yàlla yàggal ko fi yàlla na yàlla yàggal ko fi yàlla na yàlla yàggal ko fi ci barke Seexul Xadiim cant gi nag cant sunu borom la cant sunu borom moom fala cant jeexale fala cant yam ñi di ci woo mbokk yëpp di ci woo jullit yëpp di ci woo mbokki Cees di ci woo mbokki Koumpentoum di ci woo mbokki Ngaay Mexe képp kuy wax asadu laa ilaha illallah sëriñ Cheikh Dia mu ngi lay woo ci bésam bii bés bi nag ay xéewali kese la mu yéene ko jaamu yàlla yi ak jullit yi képp moo tax mu koy def ak mbaaxam ak yaatoom ak yiwoom ak tabeem tax na muy woote cant gi yaatal ko woo ci ñépp ñu ngi ñaan képp ku ko dégg mu doon sab yëgle ñu ji ci woo ñépp alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alhamdulilahi rabil alamin jërëjëf sëriñ Tuubaa jërëjëf sëriñ tubaa jërëjëf sëriñ Tuubaa cheikh na cheikhul xadim xadim rasulillahi mi jëw nent yontu alayhi salaatu wasalaam ñoo ngi tàmbali kàddu yi nag ak ñi nga xam ne ñooñu lañ àndal bis bi ndax bis bi moom moo ko dañu ko boole ñu ànd ko ak sëriñ fallu mi di sëñ fallu mor mbakki mu teewal fi ahlu mbakki yu yëpp ak njabootug Cheikh maam Cheikh Fall njaboot gi yëpp mu leen fi teewal ah damay samam xel nag day gën a dal ndax suñu borom bu ñu digalee ñu sant ñu sant gu fees yaag say bokk juróom benn fan rajab tànnal ñu bis bi tànnal ñu weer wi te ku ne xam na la ci rajab mu wiññeeku boole ñu sëriñ fallu mu jiite ci sëriñ fallu ku nekk xam na ni mooy xol ci yoon murit kon alhamdulilahi rabil alamin ñoo ngi koy tàmbali nag di jotal nuyoo bi kii nga xam ne nii mooy xalif général des Mourides di cheikh Muntaxa al Bachir di borom mbég mi yal na yàlla guddal fanaam ci wéral ko mu yàgg fi lool ak ahlu ahlu ñi nga xam ne allu diini yëpp ñi bokk ci lislaam bi yëpp eh, bàyyiwuñu kenn nag eh, ndax ci sant moom yàlla da koo da koo ab jullit kese jaamu yàlla bi la wax jaamu yàlla yi ñoo ko war a sant ndax lam leen defal ñun nag lim ñu defal xam nañu ko ba wiññeeku mu wiññeeku ñu ñu ñu koy sant ñoo ngi koy eh, ñaanal eh, sunu la Cheikh Abdou Baaxe Mbakke xalifa sëriñ Xaasim Mbakke ak njaboot sëriñ Xaasim Mbakke yëpp di ci woyet ki xam ne nii mooy Cheikh Mourtala Falilou saa su ne ah daanaka sëñ Fallou mi moo ko fi teewal ndax ñoo koy ànd birki démb rek la ni ma ah damay dem poroxaan de waaye damay ñëw damay ñëw jiitu fi ba pare door dem poroxaan kon alhamdulilahi rabil alamin woo naa ñëpp bàyyiwuma kenn lii nag nekk na loo xam ne ñépp xañ nañ ci du loo xam ne it maa ko forneel sama bopp dañ ma ko sant ma koy def kon li ma ci doon ab jëwrin képp laa ci yëgle rek laa ci am waaye leen li ci des lépp suñu borom moo koy fay kon nag woo nañ ci ñëpp ci barke Cheikh Naasimal Xadim ci barke maam Cheikh Rafat barke Sëriñ Xaasim Mbakke jërëjëf. kon bis bi ñu koy wootee mu ngi tàmbalee huit ci suba njàngum alxuraan mi huit ci suba lay commencé. jàng alxuraan gi euh, huit heures. njàngum xasida mi sëriñ Alsaan Ñang moo ko jiitee ak ñi koy àndal. conférencier bi mooy sëriñ Alioune Thiam mu karamu di doom ci ki koy def tey moo yore wàllu conférencier bi ñu ànd ko ak ñi nga xamante ni ñooy délégation yi nga xamante ni ñooy yore wàllu liggéey bi yépp sëriñ Cheikh Thiam nag cant gi day loo xamante ni ni mu ko waxee rek moomu ko ñépp la yéene lépp lu ci sëriñ suñu borom subhaanahu wa taala dale ñu ànd ko ak moom. fépp fu waay ne day wax asadu an laa ilaha illallah mi ngi lay woo mu ànd kooku njabootam nag ci kër gi ñu fekk leen fi ñuy ñu dal muy ay doomam muy soxnaam muy magam yi toog ñu dal lool ànd ak moom ci li nga xam ne jamono bu ne mi ngi koy bëgg kon yéen ñëpp ñu ngi leen ciy woo ci bés bu sell bu tedd bi euh, kii nga xamante ni moo ne suñu di sëñ Fallou Mor at mu jot mu ànd ko ak moom sëñ Omar Niass toog ne kon yaakaar naa bu ñu toogee appel bi yéen ñëpp ñu ngi leen ci woo wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.